bés boobu mooy bés bi gën sama àddina mooy bés bi gën a naqadi si sama àddina ndax man dama jàppoon ne Serigne Sall du nit kuy def barke Serigne Touba mooy bés gi metti si sama benn ci ren ñuy màggal um, kii di sëriñ Saliou nekkoon juróomeelu xalif bu sëriñ Touba. demam gi nekk lu rëy loolu ci talibi murid yi ñëwoon ren ji ci fa nga xamante ni mooy tuuba ak ci àdduna bi yépp di ko màggal ca bërëbam ba fa nga xamante ni mooy Touba foo toll di déglu zikrulaa yi ak xaside yi ñuy jollee fu nekk. وجنة حناتك مريرنا ومن فخا لكل حال مسلم ومطبخا عن كل هذا المجرم وحجة لمن بلو في الارتدى وحجة على مخالف قدما دان ما لنا من مقال منا البر والبرين ما الله ci wàll woowu ci yenn ci ay taalibe yoo xamante ni jot nañoo dajeeg ñoom ñuy fësal li ñu xam ci Serigne Saliou. Serigne Saliou ku ku neex a waxtaane la waaye ku ku naqaree waxtaane ndax ni ko yàlla defoon mm, ci benn part bi dina neex a waxtaane lool ndax yàlla dafa def dañoo defal tawféex ñu fekkee tuuti ci ay jamonoom nekkoon ku bu du doomi Serigne Touba sax waaye ku baaxoon ku laabir di jullit àqan waaw ah, dundam gépp mu sacrifié ko ci li neex yàlla ah, eh, eh, dajeeg jamono joo xam ni seytaane dafa fëkkoon gone yi ci liñ xamoon ci suñuy jamono ñun ah, nu tolloon ci jamono joo xam ne jamonoy foola jamonoy eh, mbumbaay jamonoy bopp sa bopp waaw waaye sëñ bi fexe ba dimbali nu mm, ci man-manam ak ndimbalu suñu borom fexe na ba xëccaat ñu ci boppam te boppam mooy sëñ Tuubaa boo nee sëñ Saaliw da nga mooy yonent bi yonent bi mooy yàlla suñu borom. ker bi moo ko jee gis ak bi nelawee ñeenti weer la sama doom tukki maa dem ne ko sëgg ne ko sëñ bi sama doom daa tukki am na ay ati at te gisuma ko damaa bëgg si ma ne ma tibbal suuf te ñaan li nga bëgg ma tibb suuf ñaan li mu dee ma la ma bëgg weer wool ci la sama doom ñibbisi boobu ba léegi at mu jot dina ñëw. li ma gën a marqué moo li nga xam ne dajale na ko ci ay aw aw ndaw muy daara muy li jafe nga xam ni dajale ñaari nit rek def ci ñoom xam-xam dafa jafe sëñ Saliou mën a jël lu mat ay junni junni junni ndaw euh, fexe ba li mu bëggoon ci ñoom mu def ko ci ñoom te kenn xiifut kenn marut kenn rafetlu kenn jooyut loolu lu ma marqué la ci moom nii mu fiy def tam dëkku bii nga xam ne sëñ Tuubaa ko fi bàyyi bàyyil ko fi euh, jullit ñëpp bi sëñ bi bi mu doxee ba si ci loxo loxoy sëñ bi ni ko sëñ bi defaate ba mu méngoog jamono loolu itam lu ma marqué la ci moom waaye Serigne Saliou Mbacke doomi Serigne Touba la taalibe Serigne Touba la Baye Fallou Serigne la maam Cheikh Ibrahima Fall rek lay roy saa su waxee bay dina bàyyi sunu bàyyi Cheikh Ibra waa juróom wa taalibeem la waaye roy téefam la doxin wa yëpp doxinu Baye Fall lay dox kon sëñ Saliou Mbacké bëgg bëgg sëñ Touba def jàpp ci ak moom ñu ci moom jàpp ci njëriñ gën ko jur ak taalibe rek lay jàpp doxinu sëñ rek lay doxee ci sëñ Saliou Mbacké ci jëmm sëñ Touba kay doon murid di liggéey sëñ tubaa di liggéey liggéey boo xam ne kenn mësu koo liggéeyal kenn mënu ko mais kenn mënatu ko liggéey ba tey nag. ki lii di am médecin di dellu ci yenn loo xamante ni jot na koo sekk ak kii di Serigne Saliou. wax di nag dina nekk lu ma diis lool ak sëñ ndax dafa jaar ak man foo xamante ni ginnaaw yàlla nit mosu faa jaar ak man dama nekk euh, di jàng bitim réew ba sama bayu soutenance ma def accident si guddi gi fi ma def accident daanu fa lëkk gënoon a jege ville ba fa gënoon a jege 23 kilomètres la woon ma duggee ci pax bi kenn gisuma ndax nit ñu jotoon na waaye sama encadrement bi nga xam ci suba ga damaa waroon soutenir yàlla dafa def mu fàtte ay kayit ci biroom mu dellu si waat bi mu dellu see ma dégg muy yëngatu ma yuux ndax si pax bi ma duggoon set set mètres la woon de profondeur tànk bi tam ma ñetti yoon bi mu ñëwee bi sapeur pompier yi duggee bëgg maa génne mënuñu maa génne dañ ma doon sànni kii bi pour ma jàpp si il a fallu ñu dugg si biir ñu génne ma biñ ma génnee ñu yóbbu ma sama fièvre yéeg ba pratiquement 40 degré sama yaram bi ko opéré mu am ñetti fan yu traction ko Maroc laa lay wax ni Agadir en 1992 le 25 septembre 1992 léegi ñu demee ba ay le 27 septembre 92 euh, euh, septembre 92 ñu décidément opéré professeur bi gën a mag ci orthopédie Maroc moom moo waroon opéré léegi comme man étudiante laa fa woon te macha allah damaa bokkoon si étudiante yi ñu fa gën a ràññee ambassadeur ba woote. ñu wax ne nañ ma ah, opéré ki may opéré na ko mën ci la ñu woo professeur bu ñuy wax professeur waxa bi mu ñëw di ma opéré booba fekk na man ndey ak bàyyi yëpp bokk ci waaye sama xol murit mas cee nekk depuis sama xale ma daan fawantoo di taasoo Sëriñ Tuubaa di wax bàmbaay kàbbar géej bato bay daw derga topp ca booba xale laa woon ma di ko wax noonu ba ma defee choc bi ma daal di ñu may war a opéré ñu dugal ma bloc bi ñu may dugal ñu demee ba di ma war a nelawal ah, ma ni barke Serigne Saliou ah, Mbacké noonu ko bi ñu may dugalee ba di ma anesthésier fekk ne toog naa presque ah, cinq jours am ay 40 degré de fièvre professeur bi jógee Rabat daal di ñëw hôpitalu Agadir may dugg ma ni barke Serigne Saliou Mbacké après ma ñu opéré biñ may opéré ñi ngi commencé 7 heures du matin ba ay 16 heures mënuñu fexe ba pare opération bi ndaxte dégg naa tànk bi fi fi dam dammoon ñetteelu damm bi saa bu ñu demee ba teg ci plaque bi suñ koy viisee dafay tojaat neen bi nee na mu bi c'est nañ dagg tànk bi nee na bi ñu indee si bi boor koo dagg nee na mu am lu nekk si noppam ne ko la moom xamut lan la nee na mu daal ne nañ essayé waat essayé waat affaire bi faj tojaat nee na mu bëgg a am lu ko ne mu xamul ba léegi laaj yi fu muy jóge nee na mu góorgóorlu defar ko defar ba pare ma génn léegi nag ca suba ga am sama benn xarit bu ma nekk ndoola bu mu yor ma seet si hôpital léegi fekk ne pour mi ngi ci def seen fotel Serigne Saliou ci kanam jawartu bi mu dugg si toog sama wet ma naan ko yow jàngal ma jawartu bi ndax man sonn naa sama métit yi dafa tar noonu professeur bi dugg si di xool ndax drain bi mu ci defoon ndax deret jaa ngi circulé normalement parce que moom nee na moom wóoratu ko woon ne tànk bi baax na bi mu dugg see rek gis ko ma daan ne ko nga ni mu ne ma waaw ma ne ko Serigne Saliou la wax ne mu ne ma moo moom la gis ci bi mu image am moo nekkal ci kanamam ak labi labi rek la jàpp léegi ma ne ko baax Touba ñu ngi fàttaliku kii di Serigne Saliou mu nekk bis boo xamante ni bi mu yëpp di ko fàttaliku di ko ñaanal maa ngi koy ñaanal euh, yàlla waaw ah, lii nga xam ne naaloon na ko fi bàyyi ko fi ah, sëñ Cheikh Mbacké mi nga xam ne moo di ak leeram te mu bàyyil ko fi njaboot googu yàlla defal tawféex sëñ Cheikh Mbacké ba li sëñ Saliou bëggoon naal yi mu amoon yéene ji mu yéene woon jullit ñi yàlla defal ko ci sëñ seex Mbacké ba mu def lu kawe njortu li sëñ Saliou defal ndax ndax yàlla mooy maye tam rajoon nagada mi ni wa نذرا في ذنب ليل كروانا وقيتني مغرئا داي ومن ماء وعزاكني سرمادا يغدا وأدوانا عبيت نوبي وأم لليوم